asalaamaaleykum dal leen ak jàmm mbokk internet yi di safoo di seetaan Buzz M TV waleen di abonné di partage sa vidéo dina am solo jaa ngeen jëf mbokk yi xibaar kii di Adji Sarr depuis ñu daal di atte woon dossier moom ak kii di Ousmane Sonko daal di condamné président Ousmane Sonko ñaari atum kaso moom Adji Sarr boobee ba léegi kenn déggu ko si dara waaye nag dañuy jotub xibaar léegi ki nga xam ne nag moo di direct news daal koy. jàllale di wax que ne nag kii di Adji Sarr daa di nay dem voyage yi fële sa Angleterre mu nekk nag xibaar boo xam ne doy na waar loolu comme ni ñu ko déggee woon que ne nag dossier bi buñ si génnee moom Adji saar dañ koy génnee fi nga xam ne moo di Sénégal yóbbu ko fële sa États-Unis waaye nag lu ne mel dafa mel ni moom lañ mujjee gis ndax nag euh, wax nañ que ne nag moom Adji Sarr jamono ji nag mu nga fële sa euh, Angleterre mu nekk nag mbir moo xam ne doy na waar loolu. tout nekk loo xam ne daal li sénégalais yi doon gis dafa mel ni moo am mooy que ne nag mbir mi ab complot képp la woon rek pour mën a daal di muccal ki nga xam ne moo di Adji Sarr